alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ngi waataax toujours ànd ak yéen ci seen waxtaan ñu ngi woon ci tuub tey moom la ñuy eggali incha gis nga wax nañ la lan mooy tuub wax nañ la lan mooy charti tuub di ñeent yooyule muy sellal muy rëccu muy bàyyi la nga moye woon yàlla nu mu gën a gaawee bu dee sa diggante sa boroom la bàyyil bu dee diggante doom aadama yi ay àq la dellool seen àq bu ñenteel bi nga xamante ne loolu moom dootoo ci dellu mukk la des sa giir ak dund kon tuub mbokk yi am na ay ngëneel bari na lool pour wan la yàlla yërmandeem kenn xamul nu mu toll kon mbokk yi dama ciy tënk dara rek lu mat fukk ba fukk ak benn yàlla boo xoolee ci alquran bari na lu muy wax ci wàllu tuub xoolal mu ne wa in yatuubu fa in yatuubu yaku xayran lahum si suuratu tawba waaw fa in yatuubu yaku xayran lahum de bu ngeen tuubee moo gën ci yéen kon ndeke tuub dafa baax ci ñun loolu baax ci ñun nag ñu jël ci yi boo tuubee dellu ci yàlla sabab la ngir yàlla bëggal la boppam bo tuubee yàlla mo lay beugal bopam li anna taa'iba yakunu fi xaalin min al khawf parce que toroxlu ga ngay nekke la suufee sa bop wacce sa bop ngir yàlla yàlla ne jam bi kat reconnaître na xamna man may kan kon ki sopanako kon tuub tax yàlla soppa la te ñun ñep dañu bëgg yàlla soppañu inna allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin mom la yàlla wax yàlla ne man bëgg na lool ñi tuub kon boo bëggee yàlla bëgg la rek tuubal dellu ci moom yonente bi jox ñu misaal ci yàlla ni mu lay bëggee waa ja doon tukki dem ba léppam réer amatul benn yaakaar mu ngi ci àllax mënatul gindeeku mu nekkoon kon fi toog dee rek xaar yàlla moo fi sës mu toog toog ba sonn nelaw mu dem ba yeewuwaat gis la mu ñàkkoon maanaat war waayam ax la mu ca defoon ci dund yépp nekkaat ci kanamam fekk seet na ko fu ne mu bëgg lool gis nga mbëgte moomu ki doon xaar dee gis lu la xettali mu bëgg ba ne yàlla yow yaay sama jaam man maay sa borom mu ne yàlla yaay sama jaam man maay sa borom ndax mbëgte waaye dafa bëggoon wax yàlla yaay sama borom man maay sa jaam waaye mbëgte jàpp ko yonente bi ne waajooju ni mu bëggee yàlla moo koy gën a bëgg moo tax booy tuub yàlla dana laan aqbil gaawal ñëw nga ñëw mu akolaat la daf lay yàkkamti moom yàlla kon nag nañu tuub dellu ci yàlla mbokk yi bu kenn ne li ma def fan laa koy tuube aha fi nga koy tuube mooy fi nga toog nii si sa kër mooy fi nga toog ci bërëbu liggéeyukaay bi mooy fi ngay doxe mooy mooy bërëb boo nekk situation boo nekk rek neel yàlla rëccu naa tuub naa lii loolu rek moom mooy tuub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 وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات tuubkat yi yàlla nee na may ëlbati seen sofaan yépp mujj ko obligé bind ko lu baax parce que seen sellal illa man taaba wa amana wa amila saaliha tuub nga dootoo ko defati waaye foo ñaawaloon rek yaa ngi rafetal ci lu baax rek ngay nekk léegi yàlla nee na ñooñu lu bon la ñu defoon dama koy ëlbati kon mbokk yi tuub bari na ay njariñ tuub day tax yàlla jéggal la mbooleem bàkkaar moom suñu borom mu ne wa inni la xafaarun liman taaba wa amana wa amila salihan summa htada si suratu taha kon tuub dalay faral bàkkaar yëpp dara dootu fi des bul hésité naan bàkkaar bi wala nangam yàlla jéggal na la lépp يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة مبقي نو يتوب دلو تي يالو توب بو سانسير موي توبة نصوحة توبة نصوحة توب بو سانسير بقى نكي نغنيلي توب موي تزكية النفس دنجي أم ترانكيليتي دنجي فيخ دنجي دل دنجي نكي كو كونفيانسي سبب دردو لبرتربي لنجنا نو ستريس موي نكي يو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تذكر الله سلا غي أم ترانكيليتي أم دل أم إكليبر دارا دولا ديرانجي باسكو غم غي يال ياغي أندخ يال فو مانني لولو مبوكي توب داف كاي ماي تزكية النفس آه، واي بو توبل تزور ياغي نان اي من اي مصيبه اي مصيبه لو يڠو غاني مصيبه waaye boo tuubee rek da ngay féex bokk na ci ngëneeli tuub si atu risq wal mataail xasan yàlla defal la wërsëg bu yaatu barkeelal la sa dund bara yaana nga naan lu ma yor mu yàqu lu ma yaakaar du ñëw lu ma yaakaar mu tas ku ma wóolu dem ba ci biir delluwaat ginnaaw ku ma nàngam nañu tuub rek amaana ñàkk tuub moo andi loolu waaye boo gàttee xel dem ci ku ñime yàlla ku mel ni man mu yëngalal la pitaa bi wala ne naa la finaanoo te boo moytul biddanti na ne la kat gaa yaa ngi sa kaw jógal dew nangam wala nangam wala nangam mbokk yi nañu tuub dellu ci yàlla boo tuubee rek yàlla ubbil la mboolem xeeti bunti wërsëg yi yàlla moo wax ci alquran ne wa an istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yumatti'ukum mataan xasana tuub leen dellu ci yàlla yàlla ne ma defal leen dund goo xamante ne gu naat lay doon dund gu naat lu mel noonu moom lay waxaat faneen ci suratu nuux istaghfiru rabbakum innahu kaana xafaara yursili sama aleykum midraaran ba aaya ba jeex mboolem xeeti wërsëg muy doom muy teraanga muy wér-gu-yaram loo bëgg boo tuubee dellu ci yàlla yàlla defal la ko yaa xawmi istaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم kon tuub li ñu toll ci àddina ci wàllu mbas meex yu ni mel bu ñu tuubee rek yàlla teggi lépp bu pare may ñu force bu ñu amul woon ndax tuub da lay dolli force dafa lay dolli wérgu yaram mbokk yi kon tuub ndeke moom mooy teggi balaa yépp moy teggi balaa yi xoolal suñu borom wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin xolal liko ci yàlla tegal ba mu naan yàlla man day loruna lotana yow yàlla yàlla nee fastajabna lahu فكشفنا ما به من در وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لولو تنجنيلي توبلا وظنوني إذ ذهب مهاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يلا من داي توجنا ورما وان دم بس سما دم جتل يلا لن لكو تونتو نك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بولنا يلا لولو ينتهي رجلك كمان وكذلك ننجي المؤمنين ku nekk ci xat-xat bu mu mën a doon del saxoo baat yooyu mooy la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yàlla nee ne fastajabnaa lahu wa najaynahu min alxammi وكذلك ننجي المؤمنين كوكو يننت لا دي نام واي لي مكو ديفالون كيب كو سكنكو تي لي كيب كو ديلو سوات تي مان تي لي تي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يعني من دينا المسلم بروم بي سبحانه وتعالى خولات يالله خط خط ييب موم رك موم مو في موي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد يالله لا تك فوقاه الله sayyi'aati ma makaru yonent yàlla Moussa ba ka Firawna ñoñam di fexeel mu ne wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad yow it saa yoo yëgee ne sa yaakaar nga sa noonu ñu ngi lay fexeel rek wéerul ci yàlla jamono bu ne rek wéerul ci yàlla wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad yàlla nee ne fa waqaahu llahu sayyi'aati ma makaru maa lay fekk maa lay aar kon nag yooyu nañu koy jëfandikoo bu baax bokk na ci wa ufawidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad soo ko mënee di ko def ñeen fukki fajar yoo xamante ne dara du ci tarde jamono bu ne rek nga def ko ñeen fukki yoon ax benn wa ufawidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad insha allah rabbi foo mën a nekk rek di nga am ndimbalal borom bi subhanahu wa taala lépp luy lore yàlla dina la ci musal xoolal yàlla fi mu ñuy waxe waat wàllu tuub daw delluwaat ci yàlla xasbuna allahu wa ni'mal wakil xasbuna allahu wa ni'mal wakil yàlla mu ne fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsashum suu ba nga dawee dellu ci yàlla rek yàlla nee ne ma aar la protéger la fanqalabu bi ni'ma nga ëlbataku nekk ci xéewal lu xatoon yaatu lool lu jafe woon yomba lool lépp xéewal yi baawoon macha allah te it lam yam sasum suu bokk na ci ngëneelu yooyu mooy daf lay dugal aljana moom tuub dellu ci yàlla yàlla subhanahu wa taala mu ngi ñuy wax faneen ne fa xalafa min bahdihim xalfun ba muy wax ne fa ulaika yadxuluuna aljanna wala yuzlamuuna shay'a hada ma tuuaduuna li kulli awaabin xafiz kon yàlla aljana ñi mu koy jaklel moy ñi tup delu ci yàlla wa tubu ila allah jamian ayuha mu'minun laallakum tuflixuun boo bëggee texe rek del tup di delu ci borom bi subhanahu wa taala mbokk yi kon dal mbokk yi tup bari na ay njariñ te bo beugé malaaka yi di la ñaanal di la jéggalul del bari loy tup ndax yàlla mu ngi ñuy wax naan allazina yaxmiluuna al arsh muy malaaka yi wa man qawlahu ah ña ko wër wala lu wër arash ña fa nekk ñépp yusabbixuuna bi xamdi rabbihim wa yuminuuna bihi yemuñu ci sàbbal waaye en même temps ñu ngi jéggalul wa yastaxfiruuna lillazina amanu jullit yi ñii tuub naan rabbana wasixta kulla cheyin rahma wa ilma faxfir lillazina taabu yàlla ñii tuub نغلن جيغل نغلن نانغول واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم تا يال نغلن ار يال نغلن فك يو يال كون دك مبوك يي نانيو توب ديلو وات سي يال جوت نانيو توب مبوك يي توب نك نغنر رك لا توب يومبنا لول كوم نين لاكو واخي ريتول بايل لاغا دون موي delol àq yi ne lii dootoo ci dellu sa diggante sa borom nga bàyyi lépp di sellal lépp lu baax lu ne nga ne ci rek insha allah rabbi lu lépp loo defoon muy safaan yàlla dana la ko albatil yàlla dana la soppal boppam malaaka yi danañ la ñaanal te ëllëg yàlla dana la teral te boo la laa teral ëllëg fii di nga am dundagu gu barkeel dunda neex te loolu la ñëpp di ñaan kon nag yàlla nu ko yàlla defal kon nag ñaan it mujj gu rafet yàlla nu ko yàlla may mujj gu rafet mbokk yi yàlla nu ko yàlla may xolal ñetti sahaba yi nga xamantene ba ñuy dem haswatu tabuk demu ñu won ngir joxe prétexte ta amu ñu won ben ngànt waye choono ba lañ doon daw ah beñ de ah yenen waye bi nga xamantene julli di yi sa nañ ah ndam ñu dem di tuub ci yenente bi jullit yépp mere leen embargo leen cinquante jours yenente bi ne bàyyi leen leen noonu ba yàlla àtt seen mbir c'est la yàlla wàccee aaya ne wa ala thalathati allazina xullifu ñett ñooñu mu wax seen mbir ci ayaat boobu boobule ñu dem ba suuf xat na ci ñoom amat dee sax daanaka moo leen gënal dund waaye yàlla ne na moom mu jëlee a jéggal nangul leen te xamal leen ne ñooñu ci jullit yi la bokk parce que seen tuub sincère na parce que bi yonent bi ñëwee ñoom ñett Kaab Muraara ah Umayya dañu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko tuub nañu ñu ndey ñoo juumoon liñ la waxoon ne ngant la yëpp du ngant kon tuub bu sincère rek yàlla nangul la xoolal ñooñu mujj rafet gi ñu am xoolal mujj rafet gi ñu am te ñëpp bañ leen doon boole ci naafiqa yi kon yàlla nu yàlla may mujj rafet mbokk yi yàlla nu yàlla may mujj rafet may leen ko réew mi yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na yàlla defal ñëpp sutura incha allah yal nu yàlla daxal lépp luy loraange lépp lu ñuy tiit yàlla na nu ko yàlla daxal suñu njiit yi na leen yàlla sàmm bu baax réew mi ak réew yu ko wér réew yu àddina bi yépp yàlla na fi yàlla def jàmm koor gi yal nañ ci yàlla defal lépp luy terang lépp luy yiw lépp luy barke te lu ñu tuub yal nañ ko yàlla nangul di leen dox daje ci beneen émission incha allah si seen waxtaan ci koor wasalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu.